الله أكبر الله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه من والاه بكين يانغي سانتو سوني بروم سانت كيمو يالول ديكو ديمبانديكو ديكو نيان مو جيغل نيو سوني باكار اك سوني سيك بوب ديكو نيان مو موسل نيو كي ليپ لو خامنا سوني مونتا بوب لا di wax ne ku yàlla jubal mooy ki ki jub ku yàlla réeral ci maanduteem kooku mooy ki sànku <coughs> amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg jaamu ko di jëriñ ñàkk jaamu ko di lore ku dul moom borom bi subhanahu wa taala di julitey sëlmal ci sangu-sang yi suñu yonantu muhammad salallahu alayhi wa sallam di ñaan borom bi mu dolli ko jàmm xéewal ak mucc moom ak ay saxaabaam ak képp ku topp yoonam ba keroog bés penc gannaaw loolu mbokk yi ñu leen di dénk dénk suñu bopp ragal borom bi subhanahu wa taala ci jëfe ay digleem ak bàyyi ay tereem mbokk yi ñu xam ne lislaam dafa jël wàllu sëy yoolal ko mu doon lu sax loo xam ne lu yàgg la li fi jiitu ci doomu aadama yi li yàlla sàkkee doomu aadama ci la sunnaal ci moomu yoonal ci moom sëy mu doon yoon woo xam ne yoon wu jubla yoon wu baax la waaye mooy yoon bi garanti espèce doomu aadama lii nit nit mën fee nekk di continuer ku nekk di xam askan wi nga bokk te du jaxasoo <clears throat> waaye mbirum sëy doon kéemtaan ci suñu kéemtaanu borom borom bi dane ñun yàlla yónni nañu ay yonant euh, yoo xam ni ñoo la jiitu woon yow muhammad yonant yooyu ñu defaloon leen ñu am ay soxna am ay njaboot wa jaalna lahum azwajan wa zurriya amoon nañ ay soxna ñoom yonent yi fi jaaroon waaye amoon nañ ay njaboot euh, borom bi dellu waxaat bokk na ci ay mandargay kéemtaanam suñu borom moo leen sàkkal ci seen bopp ay soxna yéen góor yi ngeen ami soxna yéen jigéen ñi ngeen ami boroom kër ngir lan soxna si dal ci boroom këram boroom kër gi dal ci soxnaam itaskunu ilayha kenn ku nekk keneen ki dalay dalal euh, yàlla def seen diggante ak cofeel moom moo ko def def seen diggante yërmande mu ne loolu ku koy xool ci yàlla ni mu dogalee nit ki ki muy gis bëgg ko romb ay buntu kër yu bari ba dem ci moom moom rek la wóolu moom rek la gis moom rek la doyloo moom rek la bëgg ku góor ki noonu ku jigéen ki noonu mu ne loolu ku ciy xalaat di nga xam ne euh, ay kéemtaan ñu ngi ci ñeel nit ñoo xam ne dañuy jëfandikoo seen xel borom bi subhanahu wa taala def defal sëy ay ponk defal ko ay charte ay condition defal ko ay jubluwaay ku nekk it mu jox la ak ci diggante ñaari way dencante yi ngir ñoom ñaar ñu mën a sàmm seen diggante ak seen nekkiin ba mu am jàmm ak salaam waaye njaboot gi nekk ci jàmm sëy bi mën a am jàmm mën a am dal ñu mënti jaamu yàlla waaye jubluwaayu sëy yi ñu mën ka matal loolu rek mooy tax mu mën a sotti mbokk yi tasaaroo na ci yenn ci réewu tubaab yi ak ren ci réewu jullit yi yoo xam ni phénomène li nga xam ne mooy julit bu jigéen di siyeg koo xam ne du julit nekkul ci lislaam léegoo dañ koy bind ci ay journaux léegoo dañ koy bind ci ay page facebook léegoo leeg dañ koy bind ci ay site internet mais léegoo leeg dañ koy jouer théâtre jouer ko théâtre sandi ko ci société bi di xool réaction julit ñi genre sondage lay nekk bu affaire bi garaawul ci julit ñi ñu ne kon affaire bi war nañ koo mën a jëmmal parce que fii scénario boo gis ci wàllu théâtre ñu koy joué ñu teg scénario bi dafa am objectif yu ñu am ci ginnaaw dafa am lu ñu bëgg jàllale dafa am lu ñuy testé dafa am lu ñuy seetlu bu fekkee ne jàll na ci nit ñi nii garaawul ci ni ko nit ñi xoolee ñu ne a ah, kon lii léegi war nañ xool naka lañ koy mën a jëmmale et puis ñi ko doon nëbb ñi koy def parce que ñi ngi koy def di ko nëbb ñi ko doon def di ko nëbb léegi nañ ko feeñal nag léegi wane nag léegi dañoo toll foo xam ne vraiment affaire liberté la affaire droit de l'homme la

waral kon boroom xam-xam yi yu phénomène yu deme nii su amee ñu leeral ci rajo yi télé yi ci minbaru xutba yi ci waxtaan yi ci bayaan yi def ci jàkka yi lii lan moo ci àtte lislaam pour mu bañ jëm kanam mu nekk loo xam ne li ñuy na la léegoo rek dañ doon gis tubaab mooy ñëw daal di koy may jullit bu jigéen léegoo léegi ñu ne tuub na tuub bi yàlla rek a xam léegoo ñu ne sax tuubut waaye daal moom dina ku jigéen ki dina ko respecté diineem dina ko may jàmm ak salaam du ko xatal léegi doom yi buñ juddoo ñu ne doom yi bu ñu juddoo ah doom bu nekk mooy xool lu ko doy bu ko neexee nekk juif bu ko neexee nekk chrétien bu ko neexee nekk kenn du ko force léegi boo leen waxee léegi comme ku jigéen ki moom julit la te ku góor ki chrétien la wala juif la mariage bi nu ñu koy takkee ñu ne léegi mariage bi ni ñu koy takkee mooy dañuy takk mariage bi ci ñaari anam dañuy def mariage bi solo ni ko l'islam jàngale def mariage bi solo ni ko diine chrétien jàngale wala bu dee juif la ñu defaat mariage bi selon aussi biñu paree ci l'islam ni ko diine juif jàngale xam nga loolu rek boo ko xoolee mooy bu raisonnableul logigul làmbatu tâtonnement lu tegewul ci lu leer la lu tegewul ci lu leer la loolu mu nekk problème boo xam ne problème bu sérieux la parce que ci l'islam ni ñuy takkee sëy diggante jullit ak jullit am na ci mais téere booy jàng ci l'islam mu lay wax ni ñuy takkee sëy diggante jullit ak ku dul jullit moom amul moo tax bu bëggee takk sëy bi da am problème parce que noo koy takkee parce que l'islam jàngalewul sëy bu ñuy takk diggante julit bu jigen ak ko xamne ne newul ci l'islam boobu mënoo ko tak parce que amul nuñ ko jangale duñ koy takke léegi la ngay am problème léegi li def moy waaji tuub wala waaji tuubul ñu xol ko ñame yalla ku nekk fele mom mu ne leen non mën nañ ko war nañ ko war mën a may comme ñom ñaar bëggantel lolu mo ci essentiel essentiel bi yow ya ko def essentiel mais du essentiel ci diine yalla def ko essentiel mbokk lolu motax l'islam tek yoon yi bi ci jëk mooy l'islam mom xam nañ ne <clears throat> moy diine ji gëna yaatu ci diine ji parce que diine jo xamne yonent nga gëm téré yëpp nga gëm diine yépp nga gëm téere yépp nga gëm weddi woo benn diine bu yàlla wàccee weddi woo benn téere bu yàlla wàccee kon bu ñuy wax yaatu kay yaatu l'islam dafa yaatu dafa yomb it diine yërmaane la waaye l'islam diine xajoo la xatalul kenn l'islam rek ngay fekk dëkk boo dem majorité ba nekk ay musulman tout ñu dul musulman nekk fa di am jàmm ak salaam kenn du leen attaqué kenn du lakk seeni kër kenn du attaqué seeni boutique kenn du laal seeni commerce kenn du leen sànni ay xeer koñ biñ dëkk bu yeboo juróom fukki këru jullit ne fi benn kër bu dul këru jullit ne fi kenn du leen xatal bu ñu yekkee lekk sax dañ leen di yóbbul bu ñu amee xew ngeen te tibbal leen laax bu ñu amee ceeb tibbal leen lekk ainsi de suite alors que demal ci réew yi nga xam ni jullit ñi dañ faa néew ñu dul jullit bari fa ëpp fa nekk fa majorité nga xool jullit ñi souffrance bi ñuy dund léegi-léeg ñu leen seen nodd yi daf ñuy déranger seen nodd jàkk yi daf ñuy déranger léegoo léeg fa yem lan la ñuy wax mooy seen jaamu yàlla yi ngeen di def di ko fësal fii mën ngeen koo def waaye bu mu fësati bu mu fësati yooyu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne jullit ñu ngi koy dund léegoo-léeg leen sax même su ngeen marié seen i jàkkaak seen i nangam du ngeen am këyit civil bi wane ne am ngeen mariage du ngeen jox këyit daal leen koy tere loolu lépp nekk ay yoo xam ne ñu ngi koy dund ci yenn ci yenn ci réew yi waxuñu yëpp waaye ci yenn ci réew yooyu nga xam ne euh, ñu dul jullit ñoom ñoo fa ëpp loolu moo tax islam moom dafa bëgg atte yi nga xam ne suñu borom teg na ko jamono dox a dox modernité am dund gi neex bañ ne atte yi dañ koy changé li araamoon démb dafay aram tey li dagaloon démb moo dagan tey ñaareel bi moo lislaam dafa jàppee képp koo xam ni gëmoo ne yàlla kenn la moom dong lañ war a jaamu amul doom amul ndend amul morom amul maas kenn xamul lim xam kenn mënul lim mën ku nanguwul loolu nangu woon ne yonent yàlla Muhammad yàllaa ko yónni jaamu yàlla la yonentam la da nga nangu rek ne jaam la du yonent nangu woon ne alxuraan yàllaa ko wàccee mu nekk waxam nangu wone l'islam moy diine ji bàyyeekoo ci yàlla tëj diine yi ku ko nanguwul l'islam yéefér la jàppe ak ko munti doon tuddal nu la neex nekkal ci lula neex yéefér nga benen bi moy l'islam dafa aramal sëy julit sëyu dafa daganal wala dafa aramal nam li nga xamne moy sey julit bu góor ci ko xamne bokale kat la ziwajul muslim bil mushrikah mooy julit bu góor du takk bokkaalekat bu jigéen su waxee bokkaalekat bu jigéen mooy koo xam ne nekkul ci aslu diine nekkul juif du chrétien mais athée la wala bokkaalekat la boo xam ne diine bi mu nekk bàyyi kowul ci yàlla yàlla musu ko wàcce donte si biir nay changement yàlla musu ko wàccee moom mushrik asli la kooku jullit du ko takk jullit jullit du ko takk loolu moo tax sahaaba yi ridwanullahi alayhim bi ñu tuubee dugg ci lislaam ku ci sa soxna fekk si wutoon ci lislaam nekkoon mushrik ci mushrik Quraysh da ko fase da nga ko bàyyi loolu imaamu Zahabi nettali na ko al imaamu wax na ko ak yeneen borom xam-xam yoo xam ni nettali nañ ne saxaaba yi ku ci amoon jabaru mushrika nanguwul tub fekk si la da nga ko libéré parce que julit du si yëg koo xam ne nekkul ci diine bu yàlla wàcce koo xam ne mushrika xaalisa la bokkaalekat la boo xam ne ci ay xërëm lay jaam koo kenn du si yëg moom loolu borom bi moo ne wala tankihul mushrikaati xatta yumin na condition la wala tankihul mushrikaati bu leen seeg bokkaalekat yu jigéen ñi xatta yumin na condition bi mooy ba keroog ñuy gëm yàlla jaam bu jigéen bu gëm yàlla sax moo leen gën ñaareel bi wala ñeenteel bi mooy lislaam daganal na góoru julit daganal na góoru julit takk ahlul kitaab ñoom ñëpp ay bokkaalekat la mais bokkaalekat ci lislaam yemuñu daraja dafa bokale kat khalis bo xamne mom ci la ci bokale bobu la judd ci jamu xërëm musul ne ci diine bu yàlla wacce am bokale kat boo xam mi ngi bokale waye nek na ci diine ju yàlla wacce bu sibir ay changement muy muy judaïsme ak christianisme on jif la wala chrétien la gëm na yonent bi yàlla yoni ci mom gëm na téré bu yàlla wacce ci mom mais gëmul yonent yàlla muhammad su ko defé koku du yem ki nga xamne gëmul ben yonent gëmul ben diine lolu manu de l'islam la fokk nit ñi bayiko xel loolu mandu ci l'islam bu len l'islam yemale won kon lislaam maanduwul ku gëmul ben yonent ak ko xamné gëm na ay yonent weddi ay yonent yéfer la mais yemuñu ci kéfer gi ñoom ñëpp ay yéfer lañ ay bokalé kat lañ mais yemuñu ci kéfer gi yemuñu ci bokalé gi kële mo gëna sori degré ki gëmul ben yonent gëmul ben téré mo gëna sori ki yéfer la momit bokalé kat la waye kële mo gëna sori ki nga xamné gëmul ben téré gëmul ben yonent lu mo tax l'islam daganal julit bu góor bi mëna tak chrétien mën nga tak juif waaye borom xam dañ ciy charte mooy an takuna xayra xarbiya loolu ibnul qayim tudd na ko ci ahkaamu ahli zimma ne sax borom xam-xam yi dañ ciy dëppoo xilaaf bi ci am xilaafun laa yuctad du lu ñuy sukkandiku day fekk ne déclaré wul julit ñi xeex julit bu jigéen boo xam wala chrétien bu jigéen wala juif bu jigéen boo xam ni noonawul lislaam ba fësal ko déclaré wul julit ñi xeex jëlul ngànnaay jàmmaarloog ñoom su ko defee kooka ah su boobaa mën nañ jëflanteeg moom لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim loolu ci aaya boobu lañ sukkandiku mooy ki nga xam ni déclaré wu la guerre mën ngaa def mu njëkk ak mbaax jëmale ci moom te njëkk ak mbaax bokk na ci mooy takk ak sëy nikaax ci la aqdu nikaax kon l'islam daga na la loolu ngir ay mbir yu bëri mooy yow da ngaa gëm yonanti gëm nga diineem moom moo gëmul sa diine mais yow gëm nga diineem loolu moo tax islam daal al ah, na leen li nga xam ne mooy lew te teey wa taamul lazin utul kitaab dagan na ci jullit ñu lekk ñamu ahlul kitaab mais ñamu ahlul kitaab bi ñu dagan ñun ahlul kitaab juif bu la toggalee ceebu jën wala chrétien toggal la ceebu jën wala mu toggal la fonde dagan nga lekk parce que ñam bi dafa dagan ci sa diine aaya bi loolu lay wax mais moom bu toggoon mbaam xuux wala mbaam sëf su boobaa yow doo ko lekk parce que loolu dafa daganul ci sa diine bu la ko jullit sax joxoon doo ko lekk wax ma laa chrétien nag bu la ko jullit joxoon doo ko lekk wax laa juif parce que dafa daganul aslan yow boo ko toggoon sax lekk ko tàbbi nga ci bàkkaar parce que daganul lekk wax laa nag koy jox mais ñoom ñam bi sa daganal dagan na nga daal di koy lekk loolu mooy wa taamu lazi utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum seen ñam jullit ñi dagal na leen wal muhsanaatu min al na leen ba tey yéen jullit ñi ñi nga xam dañoo sangete gëm yàlla والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اك جيجين نيغا خامني دانيو بوك تي وا اهل الكتاب نيكو ني سانغي تي ني لين جيتو وون ньоญو دغاننا نين تاك لين اذا اتيتمهن اجورهن تا داغين لين دي جوخ تيان نك داغين لين دي جوخ ليغا خامني موي تيان سوغين لين دي تاك بوك نا تي الاسلام دا فا ارامل ليغا خامني موي جيجين جوليت دي سيك كو خامني ييفير لا ييفير ييب نك اك دغري بو مونتي نك yéeféer bi nga xam ne yéeféer xaalis la musri xaalis wala ki nga xamne mushrik la bu nek ci benen diine moy xam judaïsme wala christianisme julit bu jigen du seek ñom julit bu jigen du seek ñom borom bi nee na ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون من كتاب آية ولا تنكحوا المشركات بولن سيك بوكالكدي jigéen ñi xattaa yumin na ba ñuy gëm mooy condition bi bi ñëwaatee ci góor ñi mu waxaat même chose wala tunkihul mushrikina xatta yuminu bu leen may li nga xam ne bu leen séeg li nga xam ne mooy bokkaalekat yi lu dañoo gëm bu leen séeg ñoom du dul dañoo gëm lan moo tax dañuy woote jëmale ci safara yàlla dafay woo jëmale ci àjjana ak ak njëggal ci euh, li nga xam ne mooy ndigalam loolu nag yàlla daf koo def di leeral ay ngir neel nit ñi nga xam ne dañuy xalaat ak di fàttaliku ñetteel bi euh, euh, ñaaru dalil bi ba tey mooy borom bi subhanahu wa wax na ci alquran suratul mumtahana yéen ñi gëm yàlla ñi nga xam ne ñooy jullit ñu jigéen ñi bu ñu dikkee gàddaay bàyyeekoo màkka ñëw médine na ngeen leen teste bu fekkee ne wér na ne dañoo gëm yàlla triché wuñ toppale dañoo ñëw tuub si dugg ci diine ji ànd ak yéen ah su boobaa na ngeen leen bàyyi seen gëm te xam ne yàlla xam na li nekk seen xol kon fa in alimtumuhunna mu'minaat bu leeree ne seen ngëm te tese ngeen leen ñu nangoo dugg ci lislaam wax baatu seede yi ah fala tarjiuhunna ila al kuffar boo leen delloowaat ci li nga xam ne mooy yéeféer ya ndax lan ay bokkaalekat lañ lu tax laahunna xillun lahum ñoom jigéen ñi daganuñ ci ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi jigéenu julit yéeféer dootu ko dagan wala hum yuxilluna lahunna te li nga xam ne ñooy ñoom eh, yéeféer yu góor yi daganuñ ci li nga xam ne mooy jigéenu jullit loolu moo tax jigéenu saxaabiyaat yi mboolem ñu tuuboon dem ci lislaam seeni boroom kër des ci lislaam yonent bi dafa tas say ba daf leen tàggale parce que ay yéeféer lañ yow set ñi nga xam ne it fekk si wuñ leen ci lislaam ay yéeféer lañ donte ci ahlul kitaab lañ bokk ñoo ñëpp ay yéeféer lañ loolu moo tax du dagan ci ñoom boroom xam-xam tafsir ñu ne yàlla wax ji mu wax ne tamit ba tey wal muhsanaatu la alladina utul kitaab min qablikum dagan na bokk na ci liñ leen may yéen euh, góoru jullit ñi mu dagan ci yéen bokk na ci li leen ñu may leen ko seen digganteeg ñoom bi muy tudd li dagan suñu digganteeg ñoom wa taamul ladin utul kitaaba xidul lakum di lim li dagan diggante jullit ñi ak ahlul kitaab yàlla daf caa bokk ci buntu sëy lii la fa tudd mooy may nañ leen yéen góoru jullit ñi jigéenu ahlul kitaab yi nga xam ne ci ahlul kitaab lañ may nañ leen ngeen takk leen fa la yem kon bu fekkoon ni Eh, jigéenu ahlu kit jigéenu julit góoru ahlu kitaab mën na ko teg chrétien mën na ko takk wala juif da koy tuddaale parce que fii mu doon tudd mooy dagan suñ diggante le fait que mu def istisna aat yi ba pare tudd ko te tudd ko moo xam tafsir ñu ne ah lii mooy mantuuq bi waaye lii mooy mafhum bi lii la yàlla wax waaye déggi mafhum bi dañ ciy déggee ne ah, kon daganul li nga xam ne mooy jigéenu julit bi di séeg li nga xam ne mooy ab chrétien wala ab juif borom xam-xam yi ci lislaam dañ cee dëppoo te amul wuute amul wuute <coughs> borom xamat dañoo dëppoo ci ne tàmbalee ci jamonoy saxaaba yi ba joon suñ jonni tey ne julit bu jigéen du seeg ab chrétien ahlu kitab wala ab juif alimaamu shafii toxal na ko ci téeréem boobu daal um ibnul munzir toxal na ko ci téeréem boobu daal awsat alimaamul bagawi toxal na ko ci tafsiram ibnu qudama bi muy tafsir suratul maida ibnu qudama toxal na ko ci li nga xam ne mooy alkaafi ak almugni cheikh al islam ibnu taymiya rahimahumullah rahimahullah wala rahimahumullahu ñoom ñëpp موم تخول نكو سي اقتضاء صراط المستقيم في مخالفه اصحاب الجحيم زيد بن وهب نانا آه، عمر بن الخطاب داف ما واخ نما خمالني يو زيد نكو يوني نكو يوني سي جامونو زيد ورون دم عراق ورون دم عراق يبو أبلاتر ابي عبيده عامر ابن الجراح مونيكو خمالني باسكو فوفو بري وون رومي ньоفا نيكون عمر نكو خمالني المسلم يتزوج النصرانيه jullit daal mën naa takk ab ab chrétien ab nasraniya wala yatazawaju nasraniyul muslim waaye nag ab chrétien moom chrétien bu góor mënta takk jullit bu jigéen loolu imaam Abdurazaq solo na ko ci musannaf at-Tabari solo ko ci tafsiram euh, al-Bayhaqi solo ko moom it mu nekk xadis boo xam ne bu wér la al-imaamu Shafii nee na borom xam-xam yi de wuute wuñ ci li ñu xam ñun ne euh, njaalokat bu jigéen <coughs> euh, njaalokat bu jigéen boo xam ne doonte jullit la moom sax du dagan muy séyeg bokkaalekat bu góor boo xam ni dafa nekk ci li nga xam ne mooy diine joo xam ne dañuy jaamu xërëm wasani wala sax mu nekk di jaamu wala mu nekk ci ahlul kitaab mu ne it naka noone li nga xam ne mooy njaalookat bu jigéen boo xam ne bokkaalekatu yàlla la moom du dagan li nga xam ni mooy julit bu góor mu ne lii de moom lañ xam ci li nga xam ni mooy téere yàlla bi loolu tax imaamu Shaafi wax ko ndax imaamu Shaafi wax ko mooy ñoom seen diine boo ca nekkee muy ahlul kitaab yi nga nekk jigéen joxe si bopp ak fo da leen a yomb njaalo du luñ garaawal seen diine kon daanaka jàpp nga ne ñoom loola sifa la boo xam ne melokaan la boo xam ne dafa taqoog ñoom melokaan bu taqoog ñoom la alimaam ibnul munzir mu ne borom xam-xam yi dëppoo ci ne sëy diggante julit bu jigéen ak ku newul ci lislaam ak diina jummanti woote woo jummanta nekk sëy boobu neen la nee na baatil kon duñ ko tuddee njaalo buñ déggee waxu imaam ibnul munzir bi duñ ko tuddee njaalo parce que njaalo du am takk du am can du am ay seede du am nit ñi ko fekkee lu ñuy nëbb lay doon loolu moo ko wutalee njaalo bu ñuy xam dañ naan kaa leen ñu fekkee diw diw ñu may leen ñu ne njaaroo la mënta nekk maadaama maye gi am na nikaax la waaye nikaahun baatil la wala nikaahu shubha ni ko alxanaabila di tuddee ibnu qudaama wax na ni <clears throat> ijmaa dëppoo ci borom xam-xam yi fasu na ci araamal juy bu jigéen di séeg ku newul ci lislaam mu dellu wax ni euh, yéeféer amul kilifteef ci jullit bu jigéen ci benn situation maanaam jigéen bi bu nekkoon jullit papam nek yéeféer papa ji amatul ci moom kilifteef ku jigen ku su bëggee sëy mën na xol ci im koñ bi imam bu ko maye parce que papam yéeféer la amatul ci mom wilaya mu ne bi ahli ahlil ilm borom xam dëppoo nañ ci mu ne loolu malik yaxal shafii mom la yaxal abu ubayda mom la yaxal ki nga xamne moy ngiruk abu hanifa muy ashabu ra'i mom lañ yaxal mu ne ibn al munzir nee li lañ mokal ci borom xam-xam yi ñu mës jàng jitu ñu yor seeni téere yëpp li lañ gis mbokk li nak nit mën na wax ni Islam dafa dafa xawa dafa xawa am ségrégation Islam nu muy nango julit bu góor mën a takk chrétien te nanguwul chrétien takk julit bu jigéen Islam dafa am ségrégation nit mën naa wax loolu ci xelam wala déet mën naa nekk waaw su boobaa dañ naan ko lii du wàllu ségrégation raciale du wàllu tënk ay liberté waaye lii mooy atte gi maandu lii mooy atte gi maandu te it lii la xel nangu mooy li jub l'islam dafa ñew daganal julit bu goor mu tak wa ahlul kitab lan lay woné moy yaatu gu l'islam yaatu ak nangu guy woné l'islam nanguna ahlul kitab bobu l'islam nanguna na budé Musa la gem l'islam nanguna na ku goor ki ko tak gem na musa budé chrétien la l'islam won ko yow sa yonent Isa man mi ñew tak la awma problème ak yow ci sa diina parce que gem na Isa ta Isa lepp lim wax li wér nanguna ko li wéroon ci téréem ba ak diinam aussi dama nangu lu wér la yow nag yaa am problème yaa nanguwul sama diine loolu loolu lay wane parce que gëm naa mboolem yonent yi gëm naa mboolem téere yi yow nag contraire bi la beneen bi mooy woo ñëpp ci gëm borom bi subhanahu wa taala l'islam loolu mooy jubluwaayam woo ñëpp ci ñu gëm yàlla bañ ko bokkaale woo ñëpp ci ñu gëm yonent yi woo ñëpp ci ñu gëm téere yi kon ki nga xam ne dafa jiital woote ci ñëpp topp yàlla bañ ko bokkaale bañ ko wutal doom wala nen wala morom wala maas woo ñëpp ñu gëm yonent yi woo ñëpp ci ñu gëm téere yi kon kooku moo war a féete kaw mais waruñu koo féete kaw kooku moo war a féete kaw waaye waruñu koo féete kaw loolu nag moo li sunu diine yaxal ci saa su ne ci lay woote te loolu nag mooy ak yaatu borom bi nee na yonent bi gëm na li yàlla wàccee ci moom bàyyeekoo ci boromam. jullit ñi ñoom it ñi gëm yàlla ñoom it gëm nañ eh, lépp li bàyyeekoo ci yàlla gëm nañ yàlla gëm malaayika yi gëm téere yi gëm yonent yi duñ tàqale diggante kenn ci yonent yi naan dañuy gëm kii di weddi kii. te dañ naan li yàlla wax dégg nañ ko dañ koy topp di sàkku njëggalam te naan ko yàlla ci yow la ñuy dellu borom bi ne wax leen yéen waa ahlul kitaab ñëw leen ci kàddu goo xam ne man ak yéen ñoo ci yem nga xam ne mooy tranche suñu diggante kàddu gi ngeen topp ko ma topp ko ñu yem ci kenn du am faveur ci kaw keneen ki ñu bokk ñu bokk dund ñun ñëpp mooy ñu bañ a jaamu kenn ku dul yàlla te bañ koo bokkaaleeg dara na yàlla amul doom comme ni ngeen koy waxee yéen ne isa doomu yàlla ñenn ci ñun bañu jël ñenn ñi def leen ay yàlla parce que ñoom seen yenn saint yi ak seen yenn prêtre yi ak abba yi dañ leen a jàppee woon ay yàlla teg leen place yàlla arbaba min dunillah def leen ay yàlla bàyyi fi yàlla déedéet lii daal buñ ko nangoo ñu ñu ci rek yow suñ ko nangul nag fa in tawallaw buñ la wonee ginnaaw bañ dëddu fa qulu shahadu bi anna muslimun nee leen ñun lii lañ gëm ci li lañ nekk ci diine gi lañ nekk ci njullite gi lañ nekk ci li lañ nekk jébbal ci li nga xam ne mooy suñu bopp ci lañ jébbal suñu borom mbokk phénomène la boo xam ne mu ngi am ci dëkk bi ñu koy nëbb ci lu bëri waaye nit ñi dañuy nëbb dara bu yàggee dañ koy feeñal ci ak ñàkk kersa dañ koy feeñal ci au nom de la liberté dañ koy feeñal ci au nom de la modernité dañ koy feeñal aussi ci wane ne nit ki nañ ko respecté bëgg-bëggam nañ ko respecté bëgg-bëggam kii woote loolu wala ki koy wax dafa réere atte yàlla atte yàlla moo féete kaw liberté yi moo féete kaw yeneen atte yi moo féete kaw bëgg-bëgg yi ab julit dafay am soumission bu yàlla ak yonent bi waxee mu jébbal boppam wax yàlla ak yonent bi tey ay xalaatam dégagé ko teg ko fële jël ay bëgg-bëggam teg ko fële jël li nga xam ne mooy ay nammeelam teg ko fële te xam ne lu mu bëggal boppam ci lu baax yàlla ko gën a xam li baax ci moom ki mu yonent bi yàlla yónni ko mu jàngal nit ñi li gën a baax ci ñoom te yonent bi lii mooy njàngaleem alquran lii mooy njàngaleem rabbana atina fi dunya xasana wa fi l xasana wa qina azaba annar wa rabbana la tuzig qulubana bada id hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله الله